Cameroun joué na leen match amical ñu gagné leen 1-0 donc match préparation la pour ñoom match préparation la pour ñun mais ñoom match bi ñoom la gën a si ñoom la gën a baax parce que tey ñu gagné nañ leen gis nañ seeni faay gis nañ seeni erreur ba tey bu ñu waree dee Sénégal dañ préparé bu baax a baax a baax a baax bien vrai que Cameroun bii ak Cameroun bi woon du benn mais ça reste toujours le Cameroun. donc tey bu ñëw compétition bokkul lax match amical te plus que compétition bi di gën di avancer plus que seen équipe di gën a mûr donc du yomb ba pare deuxième journée la leen di am kan bi moo nar a gën a metti kan yi Sénégal joué yëpp yëpp yëpp yëpp parce que équipe yu mag yëpp ñëwaat te yaa ngi joué Gambie joué Guinée joué Cameroun Gambie. suñuy suñuy voisin lañ Guinée suñuy voisin lañ Cameroun Sénégal c'est un derby ñëpp xam ne ni Cameroun Sénégal dafay metti donc pour man compétition bi matchu tournoi yi match bu ne final la match bu ne la parce que on est l'équipe à su fekkee bëgg nañ conserver suñu titre il faut ñu dem jeex dem ba jeex détermination engagement bu mot sëkk sëkk sëkk sëkk parce que kan bi dina metti trop de kan bii ku yaakaar ne kan bi dafay yomb yaa ngi nax sa bopp muy match de poule muy deuxième tour benn match du yomb match yëpp ay final la yal nañ ci yàlla yóbboo jàmm salaam ñu nii di Sénégal ñu préparé wu bu baax préparé wu bu baax a baax a baax dem ba jeex ñaan yàlla may ñu ndam ñu garder waat suñu titre incha rabbi